asalaamaaleykum sama mbokk internet yi euh, sama xarit yi nga xam ne dañ ma safoo di ma faale tout le temps. xam naa ne na namoon ngeen ma comme ni ma leen koy waxee maa leen raw tey nag dama génn ci beneen facette ndax ne woon naa leen ne décembre bi du yomb. kii mooy avocat wu jigéen ñi képp koo xam ne pare nga naan da doon avocat wu jigéen ñi dama naan laan mënoo ko nekk waaye ndaw si moom mooy avocat wu jigéen ñi ñu koy wax madame Thioye borom kër jeeg ji Moussa wàcc naa la daan naa la wóorul ku daan da féete kaw loo xam ne mës naa ko wax sama moroomu jeeg def ko waaye rawatina ren ah, ren ji la ñuy joxe li nga xam ne moom mooy caabi oto yi waaye ren ji la ñuy joxe billet màkk yi waaye ren ji bépp jigéen bu nekk sa biir néegu sëy loo laaj ñu jox la ko balaa ngay laaj ñu jox la woo ma téléphone moo la secret yi dafa am sept secret yu madame Thioye war a joxe ci décembre bi sept secret laa lay wax madame Thioy tu yaa wax loolu waaw waaw Moussa man maa ko wax nañ ma oo xam ne lépp dëgg la madame Thioy nee na dafa indi ay bagages yu bees tàq ci décembre bi ay lal yu bees tàq ay cuuraay yu bees tàq ay cuuraay yoo xam ne xam nga nu mu tudd reste na ne bouge rest reste ici ne bouge pas madame Thioy ay waay est que bu ñu reste ici bouge pas est-ce que dina baax mu ni waaw waaw soo resté ici te bougé woo bu yàggee day neex képp kuy jekk ku li jekk fii ci Sénégal ku ñëwul ci boutique gëm bii wut ci bagage yu baax yi rek ñàkk nga te kër jéeg-jéeg nga ca kaw a kaw a kaw a kaw ku koy séntu rek di nga teg la ay ban teg la waat ay ban di ko xool kon madame Thioye dama ni madame Thioye looy wax ñi nga xam ne mooy mbokk internet yi ak lan nga leen waajal ci 31 décembre bi boo paree ma daal di yeggali madame Thioye voilà ñu ñëw ci lal yi dem ci décoration yi yéen a ma gën a xam secret yeeg affaire yëpp ci biir waaw foofu laay bàyyi. Euh, léegi nag euh, tey dama ñëwoon doon leen présenter sama lit royal yi ma créé nga xam ne dama bëgg macha allah jéeg ji yëpp di ci teeru seen alaaji yi voilà ñi waajal teertu seen jëkkër yi bu ñu leen jëlijee ay rapport surprise bi gën a metti ñi seen jëkkër yi bougé rek nee naa leen dem sa kër yaay ñëw rek fekk ñu def affaire bu doy waar ci biir néeg bi voilà di créer suñu lit royal yi di ko assortir ak suñu drap machallah gis naa ne di ngeen ko gis di ngeen ko gis nañ leen defal présentation bu bu yaatu ci loolu ay drap VIP yu and ak ay lit royal yo xamanteni couleur yi machallah couleur yu tendance aussi ça dépend ci seen décoration néeg yi voilà ku ci nekk ak sa couleur yi peinture yi néeg ak say meuble ak sa déco machallah dinañ la mën créer lu nice ci loolu pour won len ne rek ñun dañuy dox ci lépp lo xamne ma sha allah day ñëw neexal kër gi yaatal ko yok harmonie bi fem yu bes ci bes tak ma sha allah ndax ku gis li xamne lu bes tàq la ma len ko digoon te dama ci ñëw ak yéen bam jeex xool couleur bo len ci soxla amna pratiquement ya du beige rose mauve comme bima len won jaune. Euh, rose euh, couleur yi nga xam ne dañu fashion yëpp pratiquement te ma xamante gi yéen bu baax ne xam naa ne léegi chambre à coucher moom kenn tëddatul di am stress gars yi dañuy def couleur yu gée nekk ci paradis terrestre bu doy waar voilà li ma leen waxoon rek xamante na ak yéen kon damay bàyyi ñu présenté leen suñu lii bi euh, bari na aussi ay forme macha allah xam naa dinañ ci ñëw ak yéen parce que comme mënuñu ñu ndoo fa genre yëpp il faut dañuy monter bii pour bi cap bi la am na ci boo xam ne quatre angles yi la voilà and ak ay support rek ay nëwum ak affaire yooyu accessoire ak drap boolal nga mëna a say pétales de rose ak yoy yéna ma gëna xam décoration yu doy waar conseil yi mu ngi fi orientation yi mu ngi fi dinañ leen jàppale ci choix yi duñu bañ sax ba déplacer wu pour ñëw assister leen pour euh, installation yi loolu yépp mu ngi fi machallah parce que maa ngi yéen fi ñu bëgg jëm dafa sori te at mu bees mi ñi way dafa war a metti kon tàggatoo bi dafa war a am nu mu nu li ma denc bari na waaye lii mun ma leen ko ñàkk a gunge parce que xam nga feet ci moom lii daf ciy neex lool macha allah kon maa ngi leen ci xaar te xam naa ne di ngeen ci ñëw parce que fi ngeen may xaar rek fa laa bëgg a génn macha allah di leen di leen ne soyez les bienvenus ak foo leen mën di nekk mën nañ ko fa yóbbu parce que dañ ko ak so dañ ko dañu euh, naka la dañ ko semblé mais accessoire yi booy xool ci boîte bu ndaw lay ñëwee pratiquement pour nga yóbbu ko ak fu mu munti doon dans le monde du jafe donc ñu ngi leen di xaar ci seen commande di leen jox rendez-vous très prochainement ci Yenen Femme, ak Kër Jéeg ji rek ak Sénégal TV ci kaw ci kanam.